lui n'est pas venu. Et aussi, euh, bon, le seul regret, c'est aussi on ne joue pas assez. Mhm. On ne joue pas assez, il y a trop d'arrêts. Tu enclenches des actions offensives, mais après, c'est des fautes, les gens se tombent. C'est pas bon. Et on, a, là, on, a, on a aussi pas mal de déchets dans ce, dans ce match. Pas, pas, pas, du tout bon. Et là, comme la presse, elle est là, pour moi, on doit donner une très bonne image. Ouais. C'est l'occasion de faire de la publicité, mhm. faire une bonne production pour que euh, de, le spectacle revienne et que ça sera télévisé Mais aussi, si les gens refusent de jouer, c'est un peu compliqué. Merci Donc, beaucoup. merci, je vous en prie. Ah, quest a à faire S'il vous plaît. Un regret. S'il vous plaît. Un bien waaw non du question parce que championnat la euphorie la rek championnat 26 journées on vient d'entamer la troisième journée deux matchs nuls benn défaite je pense que y a pas péril en la demeure session championnat qui vient de commencer donc supporters yi am nañ euphorie yaakaar nañ ci équipe bi de telle sorte que jàpp nañ ku ñu war a jàll dañ ko war a gagné certes sa match c'est à gagner parce que ko mën mais nag yàlla moo dogal ñu match nul dañ ñu defar waat pour les prochaines séances y a rien d'autre de grave waaye merci beaucoup. sant yàlla la rek sant yàlla bu baax tey nan ngeen préparé match bi tey xamoon ngeen gis na leen te yéen a fekk si ñi nga xam ne yéen a waroon joué ak ñoom. waaw Sénégal moo demee noonu nag chaque jour da ngay préparé rek xam ne équipe yëpp xam nga équipe booy fekkee rek day prép day day bëgg ñëw du la du la may dara quoi championnat bi yombul quoi parce que équipe yëpp am ay jour yu baax léegi chaque jour booy préparé match yi da ngay préparé rek góorgóorlu rek bu baax a baax a baax bañ a ñëw terrain yaafus quoi. non y avait pas pression parce que euh, nit ki ba lépp looy def boo koy liggéey rek xam nga boo ci liggéey yàlla suñ borom da lay jàppale ba soo si ñëwee rek affaire day yomb quoi duñ yàgg liggéey la di entraîner rek gëm suñu bopp rek kase toog di xaar suñ borom dogal. gëm waaw waaw ci loolu la ñuy parce que loolu rek moo ñu tax a jug quoi ñëwuñu championnat bi pour pour wane ni Ligue 2 jugee dañuy wàccaat noonu mais ni ñu ñëw pour pour wane wane suñu bopp quoi comme ñëpp quoi pourquoi pas sax ñu ne ñu ne Sonacos day day ñëw pour jël titre bi ok David à vous ça va. tey ngeen ñëw Guédiawaye waaw comme ni ma koy waxee rek comme que Ligue 2 lañ jógee première mooy ñi ngi soog a ñëw Ligue 1 dañuy def nànk rek comme que le maintien lañ joué ku joué moom da ngay dem à la recherche point. comme que ñi ngi am point moom ñàkkuñu point moom dañuy dem nànk-nànk rek championnat bi ñu soog a démarré ça reste 23 journées on va essayer ci journée yi di ñëw jéem a utiwaat ay points rek. mais woon na ngeen ñëw ñu football xam nga football moom comme man ni ma koy waxee rek man aw ma ci pression wax dëgg yàlla nga voyagé ak léegi football amatul à domicile. parce que foo dem 11 11 ngeen di nekk a ay remplaçant leen foo mënti dem da ngay imposer sa te boo xoolee on a su imposer jeune nañ jeune am nañu occasion peut être concrétiser wuñ ko mais euh, c' bon résultat moom sant yàlla bu baax ko mais gis nañ te da nga agressif parce que su ma agressif woon jël carton. mais football moo demee noonu des fois daaf boo daaf boo dafa nga foog nga dëggal sa bopp. non damay dëggal sama bopp rek. <laughs> ok merci. waaw waaw match nul bi xam nga rek neexuñu quoi parce que tey jii nii gars def nañ nga xamante ne moom la ñu war a def préparer match sérieusement mais tey jii nii yàlla moo yor mais dañ koy sante borom bi rek bu ñu mayee un point. mais fu mu nekk nii moom dañuy gën a defaraat rek gën a améliorer côté côté atta côté yi te xam naa ne incha allah bu ñu ko gënee defaraat rek ñun dinañ gën am dinañ am lu ko wér te incha allah dina baax. mais gis nañ ni gis nañ ni tamit di di di waaw xam nga rek xam nga gars moom pour ñu def benn affaire foog nga gësam leen parce que boo leen gësamul rek du ñu mën a lijjanti si te championnat bi dafa métti te fu mu nekk nii moom foog ngay rëdd boo dul rëdd un point rek du baax te jii nii équipe da ngay fubalax ñoom mais dañuy taxaw seen i mënu si dara mais tey jii nii da ngay xool yan faay nga mën a nga mën a trouver pour ut solution bi mais gëm naa ne moom yeneen match yi ñëw incha allah dina baax incha allah xam nga rek tey jii nii championnat bi demagul fenn gars yi dañuy wax nii rek mais xam naa ne incha allah moom bu ñu gënee liggéeyaat rek affaire yi dina ñëw incha allah te ñëw moom supporter xam naa ne ñii doon wax ñoom ñëpp dinañ dinañ noppi incha allah waaw mais supporter xam nga rek loolu moom rafetul parce que tey jii nii moom image club supporter dama yaakaar ne ñoom ñoom ak jou ñoom ak équipe bi dañu war a am benn li boo xamante ne collaboration boo xamante ne nii waruñu saaga joueurs yi quoi mais tey jii xam naa ne bu ñu jàppalee joueurs yi encadré joueurs yi ñaax leen mais incha allah gars yi nañ avancé jëm si te xam naa ne moom incha allah moom si kanam loolu bët incha allah di nga gisal sa bopp